asalaamualeykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di am mbégte lool teew fi tey ziyaar si le porte-parole euh, des Mourides euh, Serigne Bass Abdou Khadr Mbacké waaye fekk fi suñu woy jur sëriñ Bass Porokhane ñu koy ziyaar bu baax a baax di ziyaar mboole kilifa yi fi teew teewaay bi nag eh, dañ ko def ci turu son excellence président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu jaarale ndigal li ci premier ministre Ousmane Sonko moo tax ngeen gis xëy na lenn ci gouvernement bi eh, teew fi tey fii ci Touba lépp dugg nag ci waajtaayu màggal gi ndax kii di président de la république ndigal gi mu ñuy jox lenn la mooy fexe leen ba lépp loo xam ne aajowoo na ci ñu dem ci màggal ci jàmm waaye condition yi doon taw feex lool ci taalibe yi ah na ngeen ci dem kéem kàttan ba tax na ministre ba ca nekk wàll gañ la dénk yaa nga cay xar sa tànk tubéy yàlla dogal ñi dénk wàllum yoon yi ak lépp lu jëm ci dem beeg dikk bi mu am ay liggéey yoo xam ne santoon nañ ñu ko fii ci tuubaa ngir mu yombal dem beeg dikk bi muy fukk ak juróom benn yoon wala ay karafuur wala ay rond yoo xam ne waroon nañ ko defaraat ba mu ñoŋ ñu dénkoon liggéey bi benn ci suñuy banqaas te njiit li nekk fii di du Ndaw ànd ceeg directeur régional bi ñu def ci liggéey ba mucc ayib ba yàlla dogal na ne fukki yeeg juróom benn yi mën naa ne fukki yeeg ñett yi yemb na te yeneen ñett yi gën gaa yàgg talaata mu pare incha allah am na yeneen yoo xam ne nag dafa jëm ci dem beeg dikk bi moo tax ñu taxaw ci fexe ba saxaar yi mën a déqiwaat ñëw jóge ci ay barab yu buute waaye ci ay njëkk yoo xam ne dina yomb ci taalibe yi te yàlla dogal na ne loola tamit yemb na xam ngeen ne transport bi li muy laaj ci dem beeg dikk bi sécurité daf cee bokk ndax bëgg nañu góorgóorlu donte accident yi bëri na lool ñu ci sàkku ñaan ni ma ko waxee xalif général sànq rek mu ñaanal réew mi bu baax waaye ñaanal ñu ci réew mi waaye tamit ñi woo taalibe yi ak mbooleem ñi nga xam ne dinañ fëx jëm ci Touba ah, ñu daw ndànk respecté code de la route bi ngir mën a yegsi ci jàmm màggal ci jàmm dellu ci jàmm benn accident bañ a am incha allah ba tax na dakaar dem dikk wala senegal dem dikk bi nga xam ne bokk na ci yenn ci kër yoo xam ne ci ñun lañu topp sant nañ leen tamit ñu jàppale taalibe yi ci dem dikk bi moo tax jël nañ lu mat 243 maanaam ñaar téeméer ak ñeent fukk ak ñetti bus yoo xam ne dinay dem di dikk jóge euh, ndakaaru ci ay barab yu wuute di ñëw tuubaa di dellu ci njëg goo xam ne wax dëgg yàlla euh, yombal nañ ko tamit autoroute bi tamit xam ngeen ni euh, wala autoroute yi fu nekk la nit di jóge di ñëw moo tax faaw ñu aar ko ba tax na euh, wax dëgg yàlla ministre de l'intérieur ministre des force armées waaye tamit ak suñu euh, directeur bi nga xam ne moo yore autoroute am na liggéey bu mucc ay buñ ci def ngir fexe ba yoon wi nit ñi mën a respecter vitesse yi waaye mën a moytu daal yenn daw yu ëpp yoo xamante ne ni mën naa jur ay accident jël nañ ci nag ak ay matuwaay ak ay xarala yu yees yoo xam ne tamit ku ci def naka su dul noonu mënoo rëcc ndax ci aar askan bi la bokk kon euh, maanaam daal lépp loo xam ni ci yoon yi la ak ci dem beeg dikk bi euh, yaakaar naa ni euh, matuwaay yi ci war yëpp ak suñuy service jël nañu ko te xam naa ne dinañ ko matale ci li nga xam ne moo nekk ci suñu responsabilité la ca des nit ñi la moo xam ki moom oto moo xam kii dawal oto moo xam ka cay dugg bu ku ci nekk eh, doxalee na mu war a doxale cig dal cig ormo am naa yaakaar ne du ñu am benn jafe-jafe ci yoon yi ndax kenn mënul lekk lu weesu sa wërsëg ba tax na ñuy sàkku mbàkke ngeen ñaan bu baax a baax ci yoon yi ndax lañ ca war a def ñu ngi koy def kéem kàttan ak yeneen yiñ ci mbébét waaye xam nañ ne tamit réew mi soxla na ñaan ci wàllu googu kon euh, dañuy yeesalaat rek euh, suñu ziyaara ci turu suñuy kilifa di président de la république ak euh, premier ministre di sàkku rek ngeen ñaanal gouvernement bi ba yéene gi nga xam ne am nañ ko teg ko ci li nga xam ne moom lañu boroom dëkk bi jàngal won mi jub jubal ak jubbanti ànd ceeg Pastef gu mat sëkk ngeen ñaanal ñu ñu matale ko ndax su booba am nañ yaqin ne njariñu senegal lay doon ndax su boobaa am nañu yaqin ne li ñëpp bokk ñépp dinañ ci jot kon euh, sëriñ bi loolu moo nekkoon kàdd yi ci lu néew rekk ñu leen di massaw bu baax a baax ndax xam nañ ne période yi buñ ci tolloo dootu ngeen amati noflaay lii ñëw ci dëkk bi saa su nekk waajtaayu màggal gi jiite comité yi CRD yi ak yu ni mel ñu leen ci ñeewantal lool di ñaan yàlla mu kàttanal leen yokk wér gi yokk fan wi di am mbégte baax a baax a baax teew fi nag di leen gërëm ci dalal gi macha allah ñi ngeen ñu booleek tamit lépp li nga xam ni warloo nañ ko ak ñun def nañ ko ba def lu kowe suñu njort ñu ngi leen di sant di leen gërëm jër ngeen jëf. yëkkati kàddu yu nuyoo ak kàddu yu cant ak ngërëm di ko ci loxol El Hadj Malick Ndiaye ak mboolem délégation bi mu àndal bépp rawatina directeur général Assirout ak ki jiite autoroute bi ak. ki jiitu ki jiite terrain yi kon ni ko Cheikh Mahoudou Bachir waxee rek kàddu yi dalal jàmm la doon ak cant ak ngërëm di yóbbante nuyoo ci sa kilifa yi nga xam ne ñoom nga fi teewal di président de la république Bassirou Diomaye Faye di ko ñaanal yan bi nga xam ne suñ boom teg na ko ko te yàlla suñ boom wax ci alxuraan doonte ci geneen fànn la sax allahu alamu xaytu yajcalu risalaati waaye yan bi mu ko yan yan na ko yàlla na ko attan ba lam yéene yóbbu ko fa ci lu baax mu àgg fa di lay yóbbanteem nuyoo ci premier ministre Ousmane Sonko ak mboolem gouvernement bi yëpp di leen sant bu baax ndax cant gi fiñ ko teg rek mooy yéene ji nga xam ne gis nañ ko ci yéen ndax li rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wax ne niyatul mu'mini ablahu min amalihi yàlla balaa fay jëf day fay yéene bu noppi kon nag ñun amoon du bis bi te gis nañ bi ngeen toogee ba nëgëni Sénégal gépp ñoo leen seq Sénégal gépp fa ba fa gën a sori ñëpp ngeen yële fi ñëpp ne ci seen wuroon waaye cër bi ngeen jox Tuuba xam nañ ko te Cheikh Mamadou Farid Mbacké daa wax ne ak mbaa ak mbaa doole baaxut ndax mbaa doole bu la defee du ko xam boo ko defee du ko xam waaye nag bi ngeen fi toogee ba nage ni daal yitte ju kawe ak cofeel gu rëy ak ak gu dara desul lay gis seen ci yéen loolu na kon faaw ñu seere ko yow itam ñu lay ñu lay ci beere sa cantu bopp ndax nage ni daaw rek am na ñoo xam ne ñu ci jotaay wax naa fekk nañ ko ba nga fi jugee rek laa leen di wax ne Almadies ni ma ko gisee xam naa ne ko am ci man ak cofeel la boo ko gisee laa ko xam ci moom loolu nag bën a gën noonu laa ko gisee ci yow gisit sag man a rafetal keroog bi fi président bi njëkkee ñëw gis ma gis ci sa taxawaay ndax ràññee diwu ma loolu ma ak sa yeneen xarit yu bari yoo xam ne jëkk na sax ngeen toog ci jotaay bi waaye ma xam sa yéene ci réew mi ak sa rafetal ak sa bëgg jàmm ak bëgg xol yëpp ànd loolu nag dara ëpp ko solo kon nag ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal lii ñi nga xam ne aw sumb bu yaatu la ñu teg ko ci sa loxo yàlla na da ci yàlla defal ndam ba liñ ci yaakaar ba séntu ki ci yow nga def ci lu ko ëpp na nga xam ne daal sant nañ la bu baax gërëm nañ la cant gërëm lii ci sa jëf lañ ko gis ba ci waajtaayu màggal gi jàmp na xat na léegi laa ko wax suñ Basiiru léegi ma ne ko yéen tollugu leen ci waxtu jëf nit ñi rekk xaj na xëy na ñoo yàkkamte waaye ku xam état ni muy doxee li ngeen defe ko li ngeen def sax da ko da ko yéem ku xam ko xam ni état yi doxee li ngeen defe ko dana xam ne góorgóor dëgg ngeen ko defee waaye du lu ngeen man kon nag yàlla moom ndegam day fay jëf yéen door a fay jëf nit bu yéenee ba fa mën a bu jëfee ba fa mën a yem la ci si yéenam da koy mottali kon gis nañ ci seen taxawaay li leen ci waroon ca taxawaay lépp matal ngeen ko kon cant ak ngërëm ak ñaan yàlla ci barke Sëriñ Tuubaa moom mi ngeen mi ñuy defal bis bi te lu ci waay jëf rek mu fay la ko yàlla na leen defal leen ndam ci seen liggéey ba yéen itam ngeen am ci ndam ndax ndam li moo ndamul senegal mooy ndamul réew mi wasalaamaaleykum wa rahmatulah